jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a topp ci 24actu point com am nañu mbégte àndaat ak yéen ci jotaay bi nga xam ne tey jii fas yéene nañu ko amal euh, ñu nag euh, jongante njiitu yi nga xam ne rek am na ca Guinée ak jamono ji coow li nga xam ne jot na fa am euh, ñu seetlu am ñu bëri ñoo xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan tey ji nag ñu fas ne ci ànd ak El Hadji Modou Gueye nekk taskatu xibaar bu mag boo xam ne ràññee nañ ko ci diwaan bi rawatina jàngat yu am solo yi nga xam ne da koy amal El Hadji ñuy tàmbali ma jox la nga nuyoo ma bàyyi la nga point com. waaw jërëjëf Ousseynou maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre ñoom ñëpp 24 actu du site internet boo xam ne également bu ñu ràññee la ci biir réew mi rawatina nag fii ci dëkk bu sell bii di Touba nga xam ne yéen a ngi fii def yu am solo ma yaakaar ne bu ñu jógee ci waxtaan bi ñi nga xam ne ñooy internet yi ñuy suivre danañu si jëlee njëriñ. ci li nga xam ne moom mooy li ñu fas yéene waxtaane voilà jërëjëf El Hadji Modou Gueye ci euh, nuyoo bu am solo boobu euh, wax naa ko sànq li nga xam ne moom moo xew euh, ci Guinée gis nañu daanaka am ñoo xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan lan mooy sa première reflexion ci li nga xam ne moo xew ci actuellement ci Guinée. waa li nga xam ne moom moo xew ci Guinée yi wax dëgg yàlla képp koo xam ne africain nga danga koy ñaawlu reflexion bi ñu ci am nag mooy ñun Afrique ba léegi. Euh, suñu système électoral li benn boroom xam-xam doo wax doon wax mooy ñun soxlawuñ des hommes forts maanaam ay nit yu am doole mais des institutions fortes maanaam ay loi dëgër lañu soxla rawatina nag benn système électoral boo xam ne euh, bu ñu votee ba ngoon sa ñëpp mën a dellu ci seen liggéey comme ni muy faral di amee Sénégal xëj na Sénégal ay contestation dina mais en réalité boo xool système euh, électoralu Sénégal toll na foo xam ne fu ñu coow li lu muy bëri bëri bu ñu voté dimanche bi rek lundi bi nit ñi dañuy xëy te presque xam nañ daanaka ki gagné wala tendance yi fi mu jëm donc loolu nag xëj na moo amul ci yenn dëkk yi parce que euh, loolu benn la ci aspect yi ñaareelu aspect yi mooy mbiru troisième mandat parce troisième mandat Euh, maa ngi ciy waxtaan ak benn sànq ni benn benn kilifa politique ma ne ko Afrique war nañu xoolaat mbiru mandat soit waaw mbiru mandat d'une manière générale parce que troisième mandat euh, nit ñi dañuy ñëw def ci seen constitution ne ñoom ñaari euh, constitution bi ñaari mandat la maye waaye à chaque fois bu président bu bees ñëwee. wala président bu fa yàgg bu négocier ba ba ba ba ba war a def lu ñuy wax limitation de mandat dañuy faral di andi lu ñuy wax référendum bu ñu defee référendum su ko defee ñu indi constitution bu bees wane ne màndaa bi juróomi at la nangam nangam su ko defee nag foofu ñu tàmbalee ci constitution bu bees boobu dañu naan li wéyoon moom bokkatul ndax nga xam mooy fenêtre bi ñuy jaar moo tax daanaka mbiru limitation de mandat Afrique. surtout Afrique de l'Ouest parce que yeneen dëkk yi Afrique centrale presque amu fa ak yeneen dëkk bi nga xam ne moom koy def néew na dëkk yoo xam ne dañ ko ciy respecté loolu nag nekk na benn jafe-jafe boo xam ne war nañ ci xalaat parce que lii xew ni am nañ fii nii ma ngi am ko d'Ivoire te kenn xamut ëllëg ndax dina am Sénégal ndax Sénégal la njëkkam ak Ablaye Wade ak gis ngeen lim juróon mais bu dee Sénégal par exemple Euh, euh, mën nañu comprendre que ne peuple bi àgg nañ foo xam ne lu peuple souverain même boo ko defee ñoom bu leen neexee mën nañ la fay jëlee parce loolu moo daloon Ablaye Wade mais Guinée je pense pas que ñoom seen système ak fi ñu toll ci wàllu démocratie àgg na foofu parce que boo gisee lii fay xew ni nga xam ne mbir yi am na yu ci desee leer peut-être mais nag au fur mesure ñuy dem waaye yi ci desee leer mooy booy xool fi ñu toll nii tey da ngay gis que ne. Euh, maanaam euh, commission national électorale indépendante bi euh, dafa ko ni muy génnee résultats yi boo ko gisee da ngay gis ne dafa commencé ci ay résultats yoo xam ne dafa favorable ki nga xam ne moom mooy président bi fa nekk. te waaw maanaam waaw voilà mën nañu wax loolu parce que tey booy xool élection yi fi mës a jaar yëpp. Conakry commune bu Conakry ak commune yi nekk ci biir copital bi yëpp selu Dalein jàll moom moo koy gañe am na ay dëkk yu ne ci biir aussi yu muy gañe am na foo xam ne aussi fiefu président ba fa nekk la Condé waaw mais ñoom dañu commencé ci fief yi nga xam ne moom moo leen arrangé génne ko léegi nag euh, ci loolu aussi kële wax naa la erreur bi mu def mhm. moom dafa def erreuru moom daa di ñëw moom it daa di proclamer ne moom gagné na. kon da jàpp ne li xew selu euh, Dalein Diallo moom dafa def erreur. Cellou Dalein Diallo dafa def erreur. erreur bi mooy moom dafa jékki-jékki rek proclamer ne gagné na avec euh, cinquante trois avec quatre vingt et quelques pour cent sax la waxoon moom. Mm-hmm. ginnaaw bi la kee ñëw moom it ne gagné na avec cinquante trois pour cent mais loolu li tax ma ne la erreur la. mooy comme dañu soog a commission électorale indépendante am na bul njëkk a jukki parce que ku njëkk a jukki bàcce yow toogal ne tekk yow yaay opposant bi di leen déglu bu ñu génnee résultat yoo xam ne favorable la yow it nga nga génne say résultats. su ko jàppoo ne moom dafa wóoluwut commission bi comme parce que am na élection yu nga xam ne jotoon na fa jaar mais terewul dañ ko ginnaawal. waaw justement kooku. Euh, première erreur la deuxième erreur bi mooy lii nga wax élection yooyu ñëpp newoon nañ ko bul ci dem parce que élection yii parodi d'élection la maanaam du élection yoo xam ne dina jaar yoon seetlu xamoon na ne mhm. élection yii du yomb ci moom parce que ñëpp dañoo boycotté ñi parti yu mag yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo daal dem élection foofu presque ay ay li ñuy wax ay candidats fantoches ci français mooy ay candidats yoo xam ne presque tekki wuñu dara ay 1 pour cent ay 0,5 pour cent ñoom ngay gis ñoom ñoo ñëw bokk ci élection yi moom mu ñëw ne day tànte li amoon Sénégal comme li Macky Sall defoon bi Ablaye Wade ne day dem troisième mandat Macky Sall dafa ne moom day dem ak moom gagné ko démocratiquement wóolu na le peuple souverain mais Sénégal le peuple souverain bu Sénégal ak suñu système électoral bokkul waaw am na wute fii quoi qu'on dise ñun parfois dañuy xeeb li ñu am Ousseynou mais boo xeebee li nga am rek da ngaa gisul li keneen yor ñun li ñu yor daanaka ci Afrique même ci réew tubaab yi sax mën naa ne amu fa parce que fii li ko dale ci suuf ba ba muy àgg commission national lépp candidat bi ak ña ko fa teewal dañ koy fekkee ku demoon ci fi ñuy commission euh, départementale bi da ngay gis ni mbir yi c'est transparent amul benn benn kii bu am mais loolu nag amul fa amul fële parce que fële ñoom dañ ne kenn amul droit génne résultat kenn amul droit euh, rajo sax amu ko droit am na site internet bu ko defoon dañ ko tëj donc kon foofu gouvernement bi commission ba rek moo am droit te commission ba bon en réalité booy xool euh, wane nañ sax président commission ba fu mu sole benn t-shirt boo xam ne <laughs> c'est président ba moo ca ne ba ñu yónnee moom day jàppale président bi. est-ce que ak jaay doole googu nga xam ne nemmeeku nañ ko dina yomb Cellou Dalein Diallo dellu ginnaaw euh, ci ci. waa se Cellou Dalein Diallo moom euh, man jàpp naa ne élection yi daf koy perte gars yi dinañ déclarer vainqueur ki nga xam ne moom mooy Alpha Condé parce que loolu mooy schéma bi gis nga Guinée dafa am ay réalité yoo xam ne ñu bëri xamuñ ko Guinée susu yi ak malenke yi bëgguñu pël jiite leen ba Guinée sosoo ba léegi benn yoon la fa ab pël jiite muy Dadis Camara te coup d'état militaire la te yàggu fa sax Sékou Touré moo fa na Lansana Diarra na Conté ak moom mi di Alpha Condé bi léegi nag loolu seen sociologie la dafa am ñoo xam ne pour nga jiite leen foofu problème la le euh, Cellou c'est vrai que am na popularité nit ñi bëgg nañ ko yàgg na xeex am na aussi benn aura boo xam ne am na ko mais aussi il faut nit ñi aussi def attention parce que ñun nekkuñu sur le terrain parce que man dama gis que presse Sénégal bi aussi xaw nañu manqué tuuti de professionnalisme ci benn côté mooy maanaam par exemple tey jii nii ñun dañuy toll fii di dafa ñu presse bi boo xoolee d'une manière général traitement information bi da gis que ni ñëpp dañoo penché wu vers Cellou waaw dañu sant sentimental ci ko dem alors que média warul doxee noonu média dafa war a nekk à égale distance candidat yi lu mu gis loo xam ne war na ko mën a wax mu wax ko lu mu gis loo xam ne te ñun ñu ci bëri sori nañ terrain bi vrai que am nañ ñoo xam ne ñu ngi représenté foofu mais comme ñun ni ñuy amee accès bu ñu amee élection ci yenn information yi boo demee nekk journal journaliste foofu mënoo ko am. nag ñun li ñu gis moom moo di gis nañu ay Guinée yu nga xam ne ñu ngi Sénégal ñu xañ leen vote loolu ban jàngal nga ci def. loolu moom wax dëgg yàlla boo koy xool loolu ngay wane ne fii la njuuj njaaj tàmbalee kooku man dama koy dénoncé parce que xam nañ ni Sénégal quand ay pul futa ñoo fi nekk. te ñoom ñëpp dañu favorable seen mbokk moomu. manifestation yi kii bi amoon dakaar moo tax ma ne leen foofu aussi manifestation Dakar bi nee naa leen ñoom bu fekkonte ni muus nañ dëgg dëgg dëgg du ñu def genre manifestation boobu parce que ñoom dëkk bi ñu nekk bokkul ak seen dëkk man bind naa ko sax suma page man leen yéen su ngeen bindoon autorité ne ko dañoo bëgg a marcher pacifiquement pour dénoncer meurtre yi nit ñi ñi rey fële ak processus électoral bi ni mu demee dañ leen koy autoriser parce que Sénégal moo tëddee noonu encadré leen ngeen dox wax li ngeen bëgg a wax yépp mais nag waruñu leen mën a permettre aussi ñëw bëgg a déstabiliser suñu réew. pataara euh, gi parce que ñoom dañu gis ne seeni doomi réew tamit ñi ngi faatu ambassade bi ñu bëri di nekk ci liggéey bi di continuer liggéey comme euh, dara waa xam loolu loolu peut-être loolu peut-être mën nañ ko mën nañ leen ko nangul mais en tout état de cause aussi ñoom dëkk bii du seen réew dañu fi nekk réew mi am nu muy doxe am loi am règlement mënoo xëy rek ñëw improviser ab marche bu toll noonu bëgg a bëgg a bëgg ay tout ci wàllu yoon ñoom duñu juum réew mi ñu nekk réew liberté la réew démocratie la Sénégal marche droit constitutionnel la boo ko bëggee def da ngay dem nga informer autorité bi bu xool nombre de fan yi nga xam ne mooy kii mu encadré la nga marché sa marché am na ñu ko fi def ñu bëri yeneen réew yoo xam ne dañuy seeni i dañuy ñëw euh, seen i ressortissants di ñaawlu li xew seen dëkk police encadré leen ñu ñu wax liñ bëgg a wax média yëpp jàllale ko waaw loolu man ci laa leen di invité. léegi euh, situation bu mel nii lan moo ci war a nekk taxawaayu CEDEAO Union européenne. waaw xam nga CEDEAO xëj na ñu bëri ñu ngi koy blâmer présentement nii mais CEDEAO aussi structure la boo xam ne ay chef d'état ñoom ñoo ko seq. y compris moom moom nga xam ne candidat la donc euh, bu ñuy dem élection moom constitution réewam ne may nañ ko mu dem élection xam kooku ci daaw dootu dootu ci mën a wax parce que kooku question de souveraineté la mais nag pour CEDEAO wax aussi il faut que loolu ñu bëri dañ koy fàtte il faut résultat provisoire officiel yi génn parce que CEDEAO mënul prononcé wu ci ay résultats provisoires parce que structure la aussi boo prononcé ci résultat provisoire ñu doxal tuuti yeneen résultat ñëw fël fël résultat yooyu yow dootoo crédible en tant que institution nit ñi ñoo xaw a yàkkamti mais normalement bu résultat yëpp génne bañ ni diw moo gagné mooy président mu am un contentieux électoral obligatoirement il faut que CEDEAO intervenir loolu moom moo nekk ci seen convention mais tant que résultat génnul même élection Sénégal CEDEAO laataa muy wax dafa fekk ñu joxe résultat officiel. rey nañ euh, ay nit ñu bëri ba pare rey benn policier wala xaw ma ñaari policier donc loolu bi mu amee CEDEAO aussi waroon na mën a génne benn communiqué bu génnee communiqué bi xam le ne ah wax dëgg yàlla ñu ngi ñaawlu violence yi nga xam ne post électoral yi nga xam ne am na ci Guinée. di ñaawlu également di appeler à la retenue que nit ñi tekk ne tey ba ñu génne résultat yi loolu moom kooku moom c'est fondamental daf ko waroon def defu ko mooy def na erreur moo tax nit ñi di leen ŋàññi fu ne mën na bañ a prononcé wu carrément ci résultat yi mais mën na génn ki appeler au calme wax ne na ñëpp euh, am retenu ne teg xaar résultat officiel yi ba xam lan lay joxe su ko defee ñoom ñu mën a prononcé loolu moom waroon na ko def. xam naa ñu ngi ci euh, catul waxtaan bi euh, ñu daaneele ñetteelu mandat gi daanaka jàngoro la joo xam ne daanaka euh, day wàllante ci Afrique sow jant ndax tiitoo tey njiitu réew mi Macky Sall laaj ñetteelu mandat lu mel ni am. mais Macky Sall mën na laaj troisième mandat. Ah mën na ko laaj parce que xamalan moo tax mën na ko laaj. néew ma dina ko laaj de mais mën na ko laaj xamam moo tax maanaam Afrique non en fait dama lay wax Afrique. wanaa la sànq ma ne la président yi bu ñuy dem euh, bu ñu ñëwee au pouvoir dañuy def référendum bu ñu defee référendum loi yi nga xam ne moo jiitu woon yooyu day féete boor xam loolu la Ablaye Wade defoon ñu ne ah mandat sept ans bu njëkk bëlekat bokkul mandat juróomi at la ñu parce que boobu liiree constitution bi dafa prêter à équivoque même bu ñu nee kenn mënul def nul ne peut faire deux mandats consécutifs mais ba léegi dafa am lu des lu leerul. xam nga dañu ne le mandat est de cinq ans renouvelable une fois nul ne peut faire deux mandats mais tey jii boo nee mandat bi cinq la xam nga kon amoon na bu set kon bu set boobu moom kenn tuddatu ko dañu ne mandat cinq la kenn mënul def ñaari mandat yu cinq ans kenn mënul def ñaari mandat donc kon mandaa bi rek comme boo nee mandat bi cinq ans la donc dafa dafa dafa dafa leerul te ensuite dama lay wax gis nga président yi africain yëpp machiavélisme la ñuy yoxal li ñuy wax machiavélisme boo làmbee mu nooy nga dem tey jii bu bu waa ji jàllee Côte d'Ivoire jàll bu mu bett gars yi ëllëg Sénégal jéem a tante ab troisième mandat waaw bu boobaa aussi dañuy renvoyer nit ñi conseil constitutionnel parce que ma Sall ne woon na man mandat cinq lay def mais non justement parce que loolu moom moo tax mu ne ne woon na mandat cinq ans lay def dama koy wàññi ñu demee ba ci cëppaandaw ga mu ne ah man kat mënuma wàññi mandat bi damay dem laaj conseil constitutionnel mu laaj conseil ñu ne ko yow sept ans lañ la fal moo fal mais tey jii mën na demaat ba kii mu delloowaat juge constitutionnel bi affaire bi ne ko léegi man euh, deux mandats affaire dafa am jeexi jaaxa est-ce que mandaa sept ans bi ma def ci la bokk wala ñaari mandat yi la ñu comptabiliser bu ko conseil constitutionnel ne ñaari mandat sept bi bokk ci parce que le mandat est de cinq ans la ñu wax mais bu boobaa day dem moo tax ma ne la bu ñu exclure loolu mais man nag je ne souhaite pas mu dem parce que xam lan moo tax waaw xam moo tax euh, li tax man souhaité wu mu dem mooy raison yu bëri la benn bu njëkk mooy moom bu demul woon dina njëkk ci Sénégal mu nekk benn président boo xam ne dina def euh, di dinañ organiser ay élection ba mu jeex te président sortant ba du ci bokk waaw dina nekk aussi premier président bi nga xam ne dana def élection boo jógee fi kenn mosu koo gañ nga xam ne maanaam moom tu mooy nekk président bi nga xam mosul am défaite électorale xam nga loolu daf dafa am solo ba pare aussi bu ko neexee bu demee ba gis ne réew mi doxul mën na ñëwaat parce que constitution may na ko ko mën na ñëwaat bu bu cinq ans yi jàllee bu ko neexee mu ñëw présenté waat parce que du du am soixante dix ans dina mën a présenté waat te it aussi mu mu bu fekkente ne nii moom dafa am intention bañ a def troisième mandat parce que bu ko defee dina jur ay fitna xëj na doole mën na ñëw comme ne Ablaye waat defoon mais le peuple souverain mën na ko mën na ko gàcceel daaneel ko te loolu bu ko daaneelee dana ko am lu mu ko yàqal bitim réew lu bëri donc kon nit. troisième mandat bi man conseillé wu ko mu laaj ko mais mën na ko laaj quand même mm-hmm. mais man conseillé wu ma ko mu laaj ko parce que dafa def ay déclaration yu forte yu dëgër yoo xam ne ñi ngi ci internet bi institution yi mu yor mu ñoom Mimi Touré ñoom euh, ki yor porte-parole am euh, ñoom ñoom ñoom Boun Abdallah Dionne ñoom ñëpp ñu def ci déclaration ba ci ki nga xam ne moo taxawaloon constitution bi ci jamono jooju muy Ismaïla Madior Fall moom si boppam wax na loolu ne lii mënul nekk donc kon moom bu demee ba mu ñëw donc kàddu yooyu dafay nekk loo xam ne reflet lay nekkaat ci moom bal la booy sànni muy ñëwaat ci woon dana la déstabiliser moralement te dana la yàqal loo xam ne war ko am donc nit daal man li may fi may daanele foofu nu mooy nit da prépare préparer sa ndono Macky Sall mënul nekk di tergiverser nii di di di nga xam ne kenn xamul ëllëg kenn xamul ëllëg ku koy remplacer nit da ngay waajal nit nga forme ko mu nekk sa dauphin nga joxoñ ko nit ñi say sa say mbooloo mi nga yor ak yow li fi liggéey nga jàppale ko comme ni Barack Obama di jàppale actuellement Joe Biden nga épole ko woo say nit woo sa coalition ñu ànd jàppale kooku pour mu moom mu mën a dem élection mën a gañe mën a surveiller say arrière ëllëg mais boo ko deful mbir yi dana la bett parce que nii ñuy fonctionner nii ku la ne aussi bëgguñu troisième mandat doo ko weddi waaye nag buñ ko defee conséquences yi ma la wax mën na leen cee fekk. voilà muy bu mujj bi léegi nag naka la ñuy def ba problème mu troisième mandat yooyu yëpp euh, ñu régler ko ci Afrique. waaw problème troisième mandat li koy régler ci Afrique moom mën naa ne. Euh, man gis naa ci ay propositions yu bari bu njëkk bi mooy man jàpp naa ne limitation de mandat maanaam naan nit ñi ñaari mandat ngeen man du critère de démocratie wanewul ne ku koy def rek démocratie nga loolu Afrique wane na ko kon man jàpp naa ne man limite d'âge laa gën a gëm maanaam ñu ne euh, pour nga wut réew mi di nga am fanweeri at ak juróom mais diggante bi nag boo amee juróom-ñaar fukki at fu mu la fekk même bu la fekkoon nga nga yor nguur gi da ngay joxe dangay ngay bàyyi organiser ay élection daal dem léegi loolu su amoon ñu boole ko système électoral bu dëgër nit ki su ñëwee ci biir 35 ans yooyu 35 ans ngay am nga amaat mu nga xam di am 35 ans pour def li ñuy wax conquête et exercice du pouvoir bu boobaa yow di mën a laaj nguur ba pare exercer ko boo ko laajee benn yoon ñaar yoon jotoo ci peut-être mën nga ko jot ñetteelu yoon ba nga xam ne daanaka boo defee ñaari mandat daanaka doo ko ñetteel sax jeexal parce que loolu mooy yoon mais nag bu fekkente ne nii par exemple tey jii nii dañu continuer di def limitation de mandat ñuy ñëw di def ay référendum di delloo compteur yi zéro di tàmbaliwaat zéro li am ni day am ñaareel ba mooy bu loolu amul ñu def li ñuy wax mandat unique maanaam tey jii nit ki benn mandat de huit ans lay def juróom-ñetteet xam nga xam nga Amérique xam nga Amérique ñoom ba waaw Amérique boo da ngay boole seen ñaari mandat yëpp huit lay doon huit ans nga fi am moom ngay def. day leen amatoo pour benn possibilité un seul mandat de kii moom nga am droit de huit walla wala de dix ans wala de sept ans nit ñi ñooy xool ci référendum lan mooy lan moo leen ñu poser leen question boobu sept ans huit ans wala dix ans. su ko su ko dix ans gagné ñu yóbbu nga xam ne benn mandat ngay def mu wóor la ne yow boo ñëwee kenn du la teg pression dangay liggéey ba sa mandat jeex nga dem keneen ñëw jël loolu moo mën a arranger Afrique mais tant que ces histoires de limitation de mandat woone na ne am na ay limites parce que dañuy delloo compteur yi zero di euh, andi ay fitna ay bakkan di rot gis nga 2012 ay bakkan yu bëri wat nan waaw bon tubaab yi aussi. dañuy xeeb ci côté boobu te tubaab bi aussi lii daf leen arrangé parce que ñoom it ñi nga xam ne ñoom ñooy laaj troisième mandat yi léeg-léeg ñoo leen koy wax sax xam nga Côte d'Ivoire boo gisee ni affaire yi demee nga xam ne loxo tubaab yi génnuñu ci parce que wu gisuñu ku ñu wóolu koo xam ne mën na gérer seeni intérêt foofu waaw léegi nag comme ñoom gisuñu fa kenn ku ñu wóolu te Ouattara mi ngi fa nekkal leen fa te mi ngi défendre seen intérêt ñu ne ko yow ñun du ñu wax dara demal puusal boo gañee ñu jàppale la noonu kese la deme parce que ñoom ñoo ko jàppale woon ba mu falu contre Gbagbo donc kon seen nit la du leen lâché noonu ñu ko ko defale noonu lañ ko mën a defale ëllëg Macky Sall noonu lañ ko mën a defale ëllëg keneen France Afrique bi day wéy boobu ba léegi moo tax daal euh, ay institution yu dëgër ak système électoral bu am doole te nag bul fàtte ne bu ñu xas rek Afrique ci wàllu élection même États-Unis bii ngay gis nii contentieux électoral dafay am te bii di ñëw sax mën nga ko faa gis. bii ñu dëgmal sax mën nga ko faa gis. waaw di xanaa di leen nuyu di leen sant vraiment di leen gërëm euh, ci ñëw bi ngeen ñëw fekk ma fii également sama kër di ma laaj ci affaire Guinée xam naa ne lu jiw jógul jox lu jiw a jógul euh, jeexul jógu fa mm-hmm. benn yoon dinañ am yeneen occasion. pour mën a discuter waat ci neen question yoo xam ne ay question d' actualité yu concerné biir réew mi la ak Touba ak Mbacke ak li ko wër. macha allah euh, dégg ngeen jàngat yu am solo yi nga xam ne rek euh, def na ko ci jotaay bi rawatina rek li ñuy waxtaane muy euh, jafe yi nga xam ne moo am ca Guinée Conakry ak coow la fa am ñu ngi koy sant baax di ko gërëm El Hadji Modou ci jàngat yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy amal nekk taskatu xibaar boo xam ne itam ràññee nañ ko lool ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy amal ñu ngi koy sant baax di ko gërëm sant Mourou Diouf mu nekkoon ci caméra bi di leen jox daje incha allah yeneen jotaay jërë ngeen jëf.